mina seytaani rajiimi bismillaahi rahmaani rahiimi barkeb xaadim rasool barke maam seera faal asalaamaaleykum wa rahmatulahi wa barakaatu yéen bokki ci kenn ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ziyaare di leen nuyu nuyu bu gën a màgg ci lislaam di leen ziyaare ziyaare bu gën a tedd di leen balu àq di leen baal àq dellu siwaat fii nag bëgg a waxtaane bokk gi muy askanu cekkeen wi nga xam ne ci lan fekk baax ñun ñëpp te kenn ku ne dafa am foo soqi ko seen xaadim ndax balaa ñu ne cekkeen rek maanaam cekkeen am na fu ñu jaar te ku ñuy wax ayib moo sanc waragu njataar am congura ayib ak sàmb ayib sàmb ayib demaat bandañ sekk jël fa jigéen ju naan ndumbe sekk ndumbe sekk mooy waajuru mataar ndumbe sàmb ayib Matar Ndumbé Samba yëpp dellu ci kenn sam sam jël fa jigéen ju naan faaxu ja am ci Modou faaxu ja Modou moo jur Njaga Isa Njaga Isa boo déggee géwél yi naan Njaga Isa ji moo jur xarimaam ndaak Marema Penda Gueye Fallou yi Issa Issa Dieye maanaam bari ñaar fukki doom ak nangam nee na bari na lool ci gàttal rek xarimaam mi ci gën a barkeel màgg nu yóbbu kër Amadou Ndaak Jaane mu am fa yàlla xarimaam ñu jox ko yàlla kumba ñun mu am ca maam Dior maam Cheikh Yaaba Diop maam xarimaam man jox ma Cheikh Moussa mu am ca Abdou Salaam ak Aliou ak Ahmadou wuréew a xaaj ñu delloo ko mbee lañ ca ñoom rek kër tam seen mataar binta fàlloo mu am ca ñaari aminta aminta loo ak ale xari maam seen càmmiñ ñu fab aminta ma gën jox sëriñ Touba mu am ca Modou Moussa foofu doy naa Modou moo dem daam sëñ daam Abdourahman moom maam maram umu sekk ndax sëñ daam it ci kenn la fekk baax fa la cosaanam jël fa ñetti doomi sëñ daan yi bi mu leen jëlee mu jox ki ci mag mi soxna Aminta Lo sëñ Mourou Moustapha ki ci des mu soxna as mu jox ko sëñ Fall ki ci topp mu jox ko sëñ Bassirou soxna Aminta moo fa taawloo soxna Mari muy taawu sëñ Mourou Moustapha teg ci sëñ Bakki man mu baax mi sunu yaakaar tey ëllëg soxna Astou mooy waajuru soxna Mbène Fall muy waajuru ak soxna Faati bu sa soxna Faati mooy maami sëñ Moussa Abdou Aziz ñoom ñii ci Daaru Xudóos gii xarimaam moomee nag mbong ndaat ak Marema ak Penda bu yow ñoo bokk ndey baay ndaag moo jur sàmba Gàdd ndaag mu jur Mor Jaanda mu jur sëñ soxna sëñ Bàkki soxna loo bokk nañu ak bàyyi ku ñuy wax Faati Isa ak Aminta Njaga Faati Isa dañ jox maam Mor Anta mu am te Ceerno Faati Isa mi Sëriñ Tuubaa wóolu woon dénk ko baraada dem bu ñëw dénk ko soxna yi ak dongo yi ak doom yi te dara sikku ci Aminta Mbàkke ma ca topp nag moom la fab nag jox ko sëñ daam Abdourahman ma ñëwoon léegi di wax ci moom moom maram umu sekk ma ci ceekeen sam mu am ca amintaloo assuloo faatiloo xariloo am na ca ay doomu jigéen yu baree bare ñett ñoo ñu may wax nag moom la fab nag jox leen sëriñ wonu saa ak sëñ Fàllu ak sëñ Basiru ci defaru mag ñi rek ci seen bëgg lu baax Aminta Mbàkke moomee am na mbokk ndey mu ñuy wax Faati Mbàkke moom lañ joxoon sëñ Mandumbe mu am ci sëñ Mourou Xabaar ñett ñoo ñoo bokk ndey baami Faati Isa Faati Mbàkke Aminta Mbàkke Ceerno Ndaamal man maam Matar Samb mu jur sëñ Amidou joxoon nañ ko sama rakk yaay am na ca njaboot njagay sa yi moo jur faalo moo di taawam ba foofu dama fi dellu ci sama bopp dama naan ay bi santee waramu jataar bu ngura ayib amee sàmb ayib moo jur mataar ba sàmb ay waaye ngura ayib ba topp moom bokk moom day ak baay ngura ayib moo jur bàll pend bindi bàll pend bindi moo jur ngura saar muru antagay mayub coro ngura saar moo jur kodde sarata ak moodu sarata ak masamba sarata koo de sarata sëñ kooki njagay sëy jox ko taawam faaloo njagay sëjee faaloo njagay sëjee moo taawloo mataar faaloo teg ca maane penda bindu muru antagay fanjaay ko ne mataar faaloo moo taawloo masamba sarata mu taawloo asumi mu taawloo man mi muru antagay moo jur maam abibu jóob jur maam daam jóob mi ngi ni ci wetu ko sëñ sooy ñooñu ñooy njabootu maam Fallo mi taaw sëñ kooku njëge yi si jéey mayib coro ma ca toog mayib coro ma ca toog ñene moo jur tàkko mu jur fattaako fattaako moo jur tuuti ak mbéye ak sëñ Seex fattaako ñu fab tuuti ak mbéye dénk ko xaadim borom jaam yi mu taaw la ci soxna Jóob Mbàkke man joxoon sëñ daam Abdourahmane ma am ci sëñ Seex mii ci ndaam yàlla weer dañu jox ko soxna muslim am ci sëñ Lamine Mbàkke ak Modou Moustapha mu teg ci soxna muslimatu caatloo Seex Murtala mu bëggoon nag saa yu li ma leen di wax rek ñun askanu ci kenn war nañoo xam suñu bopp te war nañoo fonk suñu bopp ndax koo xam ne dañ naan taawu sëriñ Touba li tax ma dugg ci Cheikh Mourtala taawu Serigne Touba muy sëñ Moodu Moustapha sëñ kooku jagi sa yeey maamam waaye ci kenn sam-sam la la la bàyyi ko ñu wëlbatikuwaat ne ci atum Serigne Touba ci kenn sam la fekk baax ak kooki kon ñun war nañoo xam suñu bopp te xam fu ñuy dugg loolu moo war war nañoo fonk suñu bopp xam lu ñuy def nit ñuy jël ci ñun exemple ñuy def lu baax. di wax lu baax fu nu fekk fu ne di nu roy te xam nañu ay royaafal la li sëñ Xaadim wax léegi ne ñun bën gënu ñëpp it kenn gënuñu ndax bokk ak Serigne Touba rek doy na ak baax bokk ak doomi Serigne Touba xam ko it doy baax ndax man mii kër sama yaay nett la ma nee na maam Masamba Sarata mi ko meññ nee na sëñ Mounou Sané woon na ko Masamba mu ne ko Mbàkke mu ko téyal ma gi ma téyal la bokk ndax ak bokk ak bàqu ceeru ak doom ñett ñi sama borom nga koy sàkk baax bu jógee suñ borom ku dul suñu borom mënu koo sàkk doom it ku dul suñu borom mënu koo sàkk waaye ak bokk suñu borom doon ko mën a sàkk téye leen bokk kon nan bokk te di ko rafetal te xam lu baax lu ñuy def te dund ko te tegu ci yoon yal na yàlla jàpp nag ci barke sëriñ Touba ba li ñu suñu askan bi yàlla defa na ci lu gën a koy suñ yor ñu dem nag ba eggale ko nag eggale bi nag yombul moom waaye ñu dem ba sunu sër yi di ko def ñu fekke ci lu bari ba dootuñu xam lu ñuy def waaye fekk na ñu ñoo leen teg ci yoon ci barke Serigne Touba Serap Fall jërëjëf. Sidi Seck moo sanc Njóosi Sidi moomee moo jur Matar Sidi Matar Sidi moo jur Yoro Seck ca Bandañ sekk Yoro Seck moo jur Lamine Yoro Lamine Yoro moo jur ma Lamine Anta Codé ma Lamine Anta Codé moo jur ma Seck ma Seck jur Samba Assi Diop. Samba As Jóoba sàmba Samba Amina Jaane mu jur Masata Caane Masata Caane moom it moo jur Faati Binta mu jur Mbàkke Sekk mi ma jur jur ma Sekk mi jur Seex Sekk mais ñun ñu bari fii nag ñun ñëpp ñu bokk ko Masata moomee ñun ñëpp ñoo ko bokk waaye Sidi moomee nag ci lan fekk so fekk fekk baax ñu ñëpp ci lan soqi ko ndax moo sanc euh, Njoosi jur Matar siidi Matar Sidi jur Yoro Yoro jur Malamine Yoro Malamine Yoro jur Malamine Anta Codé mu jur Masek foofu moom fi laa a xam-xam bi la ca des moom dama ko bàyyi ci kër gi bind naa ko waaye dama ko bàyyi te bu ma ko tiimut duma ko xam